ورسخان بفروض وسنن الذي قد هي أن أتبع على الذي من بمراد اقتداء في السر والجر يكون المقتدى أحمد الخير الورى سفيري وآله وصحبه النجوم الخير الفوز والرجيم حسام إني يوم يا وخاب غيرك في دارين لا أخاب فقلت متى أبعد فقلت متى أبعد إليك منك بك عليك ورديت عنك مفردا مسلما إليك مهاجرا لما لديك ثم إليك لا لا إله سواك قد سرت لما لم أجد ثرواك يوم بخير المنن وقوتني إلا اقتفاء سنني من بعد ما كادم تداونا يدخلني في سرك القناصي كيف لم تداي والإقراء أسد في تاليف الإقراء وفي تعالم وفي تعليم وفي استغال بالهدى معلوم فخلت ساتر وسات وسلي بالمستوى سبيعين رسلي وببنيني وبناتي معا ليسعوا في أسري نجمعا يا والآفات وأنت ذي الجلال وأنت ذي الجلال وأنت ذي الجلال ذي الجلال zil jalaali wal ikraam waata waata zil jalaali zil jalaali zil jalaali zil jalaali wal ikraam zil jalaali wal ikraam waata zil jalaali wal ikraam fannajini أروم يوم نكون بمن بول خيرك ركونا لدني بيد هنا قريب لبساك وإخواني جميع سعادة دارين عقل يا سميع هب لي فيه حساد وإجابة بالمصطفى والآل وصحبه تبلي خير قسمي في المقاسم ولسيدنا بداية القاسم ولسفن ليلى هوى بهيما بحرمة ما بوب إبراهيم وليزخ خير الألال طيبين وخير جيران أخي طيبي وصفني في باطن وصفني في باطن الوسائل وأنبياء خلقه بأخي طيري ولقني ترخية خفية ببنتي رخي يد سفية وقياسايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا صوم إلى القيامة وليجب ربي بأن الخاتمة هنا وفي خد بجاي فاطمة صلي على صلي على صلي على أبي مولاي وصحبه ولسه تجب سؤالي وكن لي واسقني من الدرر ونجني من اختلال وقرر ونجني ربي ونجني ربي ونجني ربي ونجني ربي ولا داري هنا وفي خد من الأقدار والنجم والمسلمين من بلاء من بلاء والتق جسمانية في قبل بلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حبيبي جاي من هو المختار دنيا وأخرى خير المختار وجل إجابة وجل إجابة بيننا وبين كل أسن yallaaw yallaaw yallaaw yallaaw yallaaw yaa gasiiru yaa jaliilu inni aqiirun mawdi mustaliilu fal tuxnini bika wa habli al arab bi man ala jumlati ujumin wa arab sayidina سيدنا سيدنا كسب سيدنا محمد بني زيبارا سيدنا سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل السلام وسليا وسلما إليه وكل من قد انتبه إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خير المنى وعمله يا من على عن المكان عرب إني ساكن هنا وفي مرب وكن أنيسي واسقني من السقم حتى يكون ذلك خير لكم يا عدل يا مسل يا من يؤمن أنت مجير هدى يا مؤمن فأبدا كن مؤمن يا سر جلال من كل سوء وعصاب ودلال يا من ألا عن زوجة والولد هدي وهد جميع على البلد وجل إلهي وجميلان مسكني طبابك مثل اسمه بجاه خير من أباب وجل إلهي مسكني طبابك مثل اسمه بجاه خير من أباب bu ngeen gisee maa ngi jégalu bu baax bu ngeen gisee li tax ma jàng matlabul foofu seen sëñ Muntaxa da koo digle te aw ma. dimbali ma ngir sëñ Touba barke maam Seere Fall dimbali ma ngir sëñ Touba. yëkkati Seere Fall waaw. bako waaw waaw. bàyyi ma. waaw man ngeen dimbali ma ngir dem Cheikh Fall. ñaaxal ma ko ngir jëm ni maam Cheikh Fall. képp ku yëkkati sama ñàkk jox ko sëñ Moussa Ba yàlla boo ko ñàkkati ci barke laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam. waaw Moussa Ba. bisimilah. jërëjëf. xam naa ne mu xatimaat bi. da moo koy jéggal oustaz ba déwén ndax waxtu wi guddi na waxtu wi guddi na te sëñ baa ngi toog Cheikh Moustapha Karim maa ngi lay ziar sëñ Assane moom sëñ Moustapha mii sëñ Moustapha mii wanu ma boppam wanu ma boppam mi ngi ñuy taxaw mi ngi ñuy toog wanu ma boppam wanu ma ko saa bopp danoo daje Makka Sarr bis man tuddee woon Serigne Cheikh Fental ma jàng ba pare sëñ daal ñuy tàngali waa baas bi bi mu demee ba kenn sax ni Moustapha woo ma ki doon gàng ma ñëw mu téye sama loxo téye ci loxo Moustapha ni ni ni yéen ñaar ni damaa bëgg ngeen fasante ko rek daal ni Moustapha seen Cheikh Fanta maa yor de. daal Moustapha yéen ñaar Moustapha yi damaa bëgg ngeen fasante ko rek maa ngi ko jëlal numéro jërëjëf ñaari ñu ne rek sëñ Basiru ci maam Cheikh Fall mu ko dinañ ko fekkee bu déwénee ma jàng mu xaatimaat bi ma laal tuuti ci Cheikh Ibrahima da ngaa jàng ba ñàkk ñaan la sëñ barke Borom Tuuba rahmaani rahiim bilaay doole ci Seex Ibrahima Fall alhamdulilah bismilah Seex Ibrahima Fall rahmaani rahiim yi laa dooleel ci Seex Ibrahima Faal loo mën a wàcc sëriñ bi ci maqaama yu rëy taxul nga jot asakay baat yu Seex Ibrahima Faal xarafi Faatiha moom laa lay bëgg a way ba mu jeex ngir alxuraan lépp mooy Faatiha Seex Ibrahima Faal damay murit bu ko sopp waaye rek du Seex Ibrahima Faal kenn ku ko xam ku ko xam day noppi Seex Ibra Faal leeram nga jaamu na buur téeméeri junni bi at te kenn tànnul aadama ka wa Seex Ibra Faal li mu doon mu ne fu ko wax buur yàlla moo xelale wallaahu yaqulu maa yashaa'u Seex Ibra Faal la daan ya akul bi yaa xaw si yeneen jamono aarifa seen bota tampelal Faal xamu ko ku sopp Seex Ibra defal nii say baaraam basmala laam nga ca kaw basmala laam nga ca kaw basmala laam nga ca kaw basmala laam nga ca kaw basmala laam nga ca kaw basmala laam nga ca kaw te baa nga kenn xamu ko baa gaa di Seex Bamba laam nga lamp ci Ibra Faal ëllëg la ñuy xam mbirum sëriñ bi baatinam bi ci moom xajul ci téere yi àtte xel yi seet la faal murid bi yow laay waxal comme loo ko suul defe na ku yàgg la mbaatu dëkk allahu seet la faal Serigne Bassirou Diop yal na fan yu yokku ku sopp Seex Bassirou Diop ku sopp Seex Bassirou Diop ku sopp Seex Bassirou Diop Seex Bassirou Diop na fan yu man maa ngi ñaan sa fan yu sopp mu ful na nga dundaat téeméeri at yu topp nu yàgg ci ronam bu kenn wopp Cheikh Bassirou Diop am naa ci naa ci yow lu ma saf Cheikh Bassirou Diop mus naa ci yow lu ma saf ngam nan la dootunu ba yaa na bu lu ñaaw te feeñal bu rafet yaa boole ñëpp defar gën ñëpp kenn dala baal Cheikh Bassirou Diop yàlla ngi lay gërëm yàlla ngi lay gërëm yàlla ngi lay gërëm ak Seex ma doon ma sàmm ngir li nga jëf ci jaamu yàlla yi ak fekkee ka fekk musiba da ngeen jëf ñu ngi tuub tey jégalu seen